lan moo lay firndeel ni ñoom li ñuy wax ne mooy doublon doublon la. oui euh, xam nga mbirum parrainage bi d'abord. Mhm. man dama jàpp ne mbir yi bu yegsee ba fii lépp opposition bi. parce que fa ñu war mutualiser leur force. Mhm. pour mën taxaw xeex ko ci loo xam ne ñu ngi koy dénoncer boobu ba léegi. Mhm. lu ñu assisté mooy lan division moom moo am seen biir. Hmm. ñi dem dialogue ba dañoo nangu. Hmm. ñi nekk fii ba léegi di continuer di dénoncer luy wàllum euh, parrainage. Hmm. kon donc il y problème. bu fekkoon boole woon nañ seen i doole. taxaw tëj ci ne mbirum parrainage day tëb ci élection. su boobaa kon dootuñu nekkati fii nii di wax lu jëm ci wàllum parrainage loolu benn beneen bi moom mooy ñoom lu ñu gën a kaas ci parrainage bi. moins modalité opératoire. parce que véritablement il faut reconnaître que le parrainage tel qu'il est pratiqué actuellement eh même une ñu ko Wagné réforme que ça profite à quelques-uns au détriment des autres. je m'explique tu sais mm-hmm. pourquoi. nous sommes 13 députés qui à un am parrainage. Ben benn boo Amnou. pur Amna taxaw Dakar am na parce que ku ci nekk tu es entre 11 12 le PDS am na. ils sont à 27 députés. Mm-hmm. mais léegi ñeneen ñu ngi def. ça c' est une sélection déjà. Mm-hmm. léegi nga jóge ci loolu nga leen dem leen uti 120 vingt maires. Mm-hmm. fii ñenn ñoo fi am 120 vingt maires. c' est le camp présidentiel. wala président conseil départemental. oui c' est c' est c' est c' est c' est l' opposition ben, une partie de l' opposition. kon donc déjà ay sélection la. man li ma d' accord moom mooy sélection na am filtre il faut am parce que mënuñu baye n'importe qui quand même du jog di surtout pour euh, l'échéance bi la présidentielle ku nek jog na da nga bëgg ah, oui non ñu d'accord ci ils sont en droit <laughs> parrainage wala ko sélection objective mhm. ci naka mu di nous, jël ci à partir des dernières élections ñi nga xam tane ni au moins ils ont une certaine représentativité ñooy leen ñii kat d'office yéen mun ngeen bokk parce que pesé wu ne et les élections moom lañ jàpp ne moom mooy baromètre bi nga mën a wax ne ne kii il est représentatif ou il ne l'est pas. maaleykum mm-hmm. salaam maaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi woon ci raisonnement bu neex waaye asalaamaaleykum. maaleykum <laughs> salaam. maaleykum salaam. l'homme ne dit pas. l'homme ne dit pas. mais quel euh, plaisir mais monsieur le maire. yaa ngi am jàmm. ziar si la damaa réer. ah déet déet yow waroo réer yow fii miin la. man rek ngay déglu de. yow laay dem waaw. man doo ma nuyu. ñëpp laa xuloo. ah mu def man rawatina Yastoor déedéet kii sama kilifa gi moom. <laughs> moom kenn du xuloo ku xuloo moom ñibbi si moom koy fay. dëgg la moom. ëpp naa def waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ak si continuer ci parrainage bi. waaw. <laughs> mais mais tu parrainage bi mu nekkoon. donc <laughs> c'est pour permettre que ëllëg bu ñu mais mbirum doublon est déjà dina nekk loo xam dina wàññeeku. imaginons ñu am au moins une dizaine ou une vingtaine de candidatures ku ci nekk war a dem uti. ñii nga ne leen déjà yéen moom amatul problème parce que am ngeen ni député yéen ay dem élection am ngeen di nangam ak nangam mais ñeneen ñi dem leen ci askan wi ñu parrainé leen. et vous n'êtes pas sûr. Il y a un parrain que ki est parrainé d'abord ce potentiel électeur là mais benen bi moo est-ce qu'il est de bonne foi parce que les parrainel dem parrainel a loolu moom qui indi justement lu jëm ci doubler. Mhm. donc parrainage filtre mënut mais il faut ñu dem ci lo xam tane les critères ak modalités opératoires day objectifs nous xam tane ne lu objectif la mhm. les candidatures indépendantes Mouille le camp présidentiel beaucoup de faits, nous trouver un consensus sur les critères et les modalités opératoires Beaucoup de faits. dinañu permettre au moins quand même du ñu nekkati fii naan wuy wàllum parrainage bi lii da ngay yóbbu sa clé USB da ngay lii da ngay laa pour le reste pratiquement lépp ngay ignorer donc bu fekkee ne loolu def nañ ko je dina ñu mën a permettre au moins dinañ mën a am ay candidatures yu sérieuses am élection yoo xam ne ngeen baal ma nag tey baat moom dama koy jéngu rek peut-être yow boo waxee ne ñi gën a méritant xaw ma ñuy gën a pesé ñooñu ñu ñu jàll d'office le reste mën a euh, euh, dem lijjanti li si des

am na ay mouvement yu nga xam ne tey jii ñoo gën a pesé que yenn parti yi te pourtant parti yooyu PIT gis nañ ko parti cosaan la LD parti cosaan la

parti individuellement ou en coalition souvent coalition yi li ñuy def mooy parti bu ne day indi ay parrain bu Fofana day indi bu Fabrice indi sama bas indi bu Ahmed indi ñu mutualiser yobu. mais xam nga problème bi fan la nekk moom la Fofana bëggoon souligner contrôle parrainage commission bi koy contrôler foofu le problème bi nekk mm. parce que yow comme tu dis ce clé USB ngay indi wala ñu laaj le say say say fiche mais après xamatoo ci dara on déroule peut-être même que am nga fa représentant mais xamoo affaire yi nan la tu ne maîtrises pas le logiciel, tu ne maîtrises pas les critères du logiciel, tu ne maîtrises pas l'algorithme, tu ne maîtrises rien du tout. un milliers de doublons comme ça. Donc ça également c'est bizarre. Peut-être pour également le médecin Averbi a bouchon là. Parce que finalement, yo, yo, déposer sur la bonne foi de tes de, de tes Nous nga dem déposer mais après amatoo ci nous contrôle. aywa merci beaucoup honorable député maire de Guédiawaye ville euh, Ahmed Aïdara est parmi nous ce matin alors nous avons na ñu laaj ko moom itam ci parrainage bi liñ ci modification yi am assemblée nationale vraiment ben, condensé de l'actualité. Waouh, Assalamu alaikum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu nag. Euh, asalaamaaleykum Asma maa ngi lay nuyu. di la fay. honneur aux femmes après nuyu nag. Euh, yaas. ma def comme ni ma ko doon defee. waaw ma def ko ni ko daan defee. yaas toor yaas toor. yaas. parce tá, tá ah, é que sama yaram moo tàngoowul xaaral bu ma essoufflé wu ci kanam. aywa xaaral bu ma não wu. yow après dégg sa waay bien. wuy ma fa dem mukk. xaaral ku dégg séeréer. ça tombe bien. mukk mukk mukk mukk du ma fa taxaw. ñu may dugalal publicité mukk mukk mukk mukk mukk mukk. Simon nii nag waaw sama suñu kilifa waaw di ko sant di ko gërëm nag moom tam bu baax a baax nuyu tam sama rakk ji moom du foofu na borom géej waa ngi nii kii ci sagu suñu waa la bokk de mais kenn du yow ngi ne village bi naan Ngema ci gab bi seen TV nuyu itam waa kër gi nuyu borom kër gi tamit di Bougane Gueye Dany ak euh, sama doom Mantoulaye waaw nuyu ñëpp daal sant ñëpp tam mm-hmm. gërëm ñëpp mm-hmm. waaw xam nga temps bi nag moo xam moo tax ñu bëgg nuyu ñëpp du fi xëj waaw nuyu itam sama doom ji Awa Seck ak ñoom ak suñu technicien jidi waaw ak ñoom Chimère mm-hmm. Chimère nee na Aïcha mi lay seetaan ah suñ candidat bi. waaw moom nag cat li mooy dafay xaw a déclaré quoi. dafay ñëw fekk candidat yi tam ah. waaw borom tënkee naka ngi nii. Mm. Mame Mbaye sama moom de dañ ma ko fi yoon dañ ma ko fi dénkoon ma jékki-jékki rek gisatu ko. <laughs> mu réer la mu jël yoonu boppam dénk la far mu réer mais mais Asma. gis nga wàllum parrainage bi. bi yàlla dogalee ñu dem assemblée. Mm-hmm. ñi ñu wax ne dañoo demoon ci dialogue bi yëpp. dañ ko voté. Mhm. man comprendre naa leen loo leen tënk moom da ngeen koy voté. Mhm. pur moo fa defa des Pastef. Mhm. ak euh, Aïda Mbodj ànd ak euh, Déthié Fall ak Habib Sy parti laax de. ak Guédiawaye laa bokk. benn contre moo am assemblée nationale man ànduma ak suma coalition ci vote bi. di waa yeewi. j'ai voté contre. waaw yo, mon contre nga voté ñi si des abstention. ñëpp ñëwee askan wi abstention. quand ils m'ont demandé non Ahmed ci biir groupe bi abstention ma ne ah non Yewwi mon ko xeex lu tolloog juróomi Ni ñëw fii pour des raisons politiques ma bëgg que sans <laughs> man du ma politicien xaw ma yooyu. Oui, oui, oui, xonq non. la constance. la constance. c'est logique du ma ko voter. même bu dee dañ ne dafa trahir mbirum groupe bi xaw parce que. parrainage foofa na wax na ko. Simon moo àtte ñëpp. mbirum mbirum mécanisme. technique bi mu laaj. machine yi mu laaj mais loolu. filtre loolu nekkul sax filtre sax waaye booy xool ba ci biir mooy li kii wax rek. maître Abdoulaye Tinoir. bouchon bouchon la. luy du luy firi. waaw ko waroon def lantin kii. lantinoor waaw. mais di mais non. Macky Sall dafa def tout simplement parrainage bi pour am ñu mu téye am ñu mu téyewul. loolu kese la amul beneen explication bi yoon nag ñu indi ci lu bees ñu ne il faut nga am 13 députés dégg naa foofu na di ko wax. wala 120 chef d' exécutif. xam nga li ma la maire wala président conseil départemental. Mm-hmm. mais 120 maire wala conseil départemental xam nga kan moo ko am. Mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar kese. Mm-hmm. moom kese moo ko am. kese dégg naa xaw ma kan doon wax naan xëj na wa yeewi yëpp boo leen dajalee matuñu ko. wàllu yëpp boo leen dajalee kon kenn rek. léegi bu doon loolu rek moom moo ci des kon benn candidat la élection présidentielle di am mooy dem premier tour mooy dem deuxième tour waa lii lii lii lii lii lii lii lii lii lii parrainage ñu ñëw ci député yi treize députés kon quatre quatre partie ñooy dem mooy Pastef taxaw PDS ak Benno Bokk Yaakaar nga ñëw nag léegi ci parrainage citoyen foofu fichier électoral bi ñaata moo fa nekkoon ay 6 millions et quelques. ñu ne woon 0,8. maanaam yooyu yëpp yees la de amul benn changement. 0,8 la ñu waxoon. nee nañ mooy 65000. gën léegi nag nee nañoo yaay yoo wàññi nañ ko léegi ba 0,6. waa fichier bi léegi ñaataa fa ne. yokku na. presque plus de 7 millions. defal règle de trois yi rek. waay dañuy sóob naan Macky da koo wàññi wàññiwu ko de. ça dépend ca la nekk ca. dafa gën a teg maanaam da ko léegi nag. moom mooy ñëw xoolaat mais yàlla moo ay. yàlla li coon sekk naan yàlla dafa ay. Mm. waaw soo seetloo présidentielle deux mille dix neuf. cinq lañu woon. ba fii may wax ak yow nii nii nii nii nii nii trois yëpp ci xat-xat lañ ne. trois yi ñan la. APR amuñ candidat. Mm-hmm. APR am nañ candidat. amaguñ ñu ngi ci guddi gu bët setagul. Mm-hmm. PUR ñu ngi ci guddi gu bët setagul. léegi ma dikkee moo fa ne woon kooku nee na bàyyi na sëñ bi jox na ko ndigal mm-hmm. ak kan ak bi Madické PDS Idrissa Seck Idrissa Seck Ndamal Kajoor waaw kooku kooku kooku ci ci ci parrainage citoyen bi moom la jëm ci ci li ma yaakaar à ah. moins que Macky ne ko mm-hmm. nel Mariétou Dieng mu ñëw fii nii ñu jox ko treize te képp kuy jaar ci parrainage citoyen mënoo jël sa loxo teg ci kaamil damay jàll par force. kon ba tey dëgg sërëxal la parrainage ma ne dama ne juróom yi nga xam ne ñoo demoon bee paase guddiñ toll ñii may wax ak yow ci xat-xat lañ ne léegi nag ñi nga xam ne dañ leen a woon ñoo gën a xeeñ bokk xalifa téyewuñ ko. Mm-hmm. Karim téyewuñ ko. Karim. ñuy taay mi ngi mel ni luy xeeñ neex te Karim moom. Karim moom dañuy toog rek ba mu yegsi ci réew ah da ngeen koy xaar. man non man la man man man sama ngëm-ngëm laa wax man. man hmm. man dama ne Karim damay toog ba mu yegsi ci dëkk bi. papaam démb ñëw na ak yaay ji. damay toog ba Karim yegsi fii ci biir dëkk bi. ba pare ne candidat laa. ndax la. dama ko waxoon deux mille dix neuf. Hmm. bi yoon nag yàlla bu sama làmmiñ bi barke. deux mille dix neuf bi ñu fi nekkee ñoom Amina Sakho ak suñu waa koñ PDS yëpp. Hmm. dama leen ne Karim du ñëw. wut leen plan B wut leen plan B wutuñu wutuñu parrainel ko def lépp. jàlluñu parrainage Karim dikkul. bii nag ñu ngi ñaan yàlla nag Karim nag ñëw. mais bii mën na wute di ginnaaw euh, waxtaan am na. waaw waxtaan waxtaan am na ak euh, CREI yi. waxtaan bi nañ ko. dissolution CREI yi laa xamul man CREI liñ doon xaar mooy ñu indi ci ay réformes. ci assemblée nationale. Mhm. réforme waaw mais le gouvernement wala la CREI. Mhm.

aduna bi yëpp wër nañ ko dépenser nañ fa ay milliards yu dul jeex. fépp mm-hmm. dañoo ko. waa léegi suñu milliards yoyu ñu dépenser woon ci créé bi yëpp xëy toog. ba paré lolay deuxième bi troisième bi. Mm-hmm. Macky Sall mo ne woon ay nitam dajalé leen salle des banquets ne leen loolu laax ci kanam ministre bi ne ko yéen Macky Sall avait dit que la CREI c'est pour eux l'OFNAC c'est pour nous et le parquet financier pour ñan la pour yéen la c'est non la pour créer pour pour hmm. troisième cour

rien ne va entre le peuple ak la population ak ak ak ak ak justice xam nga assemblée sax meloon na ko de bu la waxee ne député nga gars yi ne cim tàccu dong lañ fa nekkee nelaw. waaw hmm. justement mais bi bi hmm. non bii kay dañ naan non assemblée de rupture mais ñii moom ñii moom ñii moom attention. léegi léegi vote assemblée nationale day am enjeu. Hmm. avant dialogue bi bokk. mais ba dialogue ba duggee nag. <laughs> mais mais ñu des assemblée nationale tuuti laata ñuy dem revue des titres. Euh, dañoo nemmeeku Ben bi ngeen def. ben bloc bi def pour rejeter article 87 bi nga xamante président Macky Sall proposé on na mhm. sénégalais yu bëri nag euh, rafetlu li ni mel kon am capacité mën a autour d'une décision L'autre tax ñuy gis la plupart du temps assemblée nationale xuloo moi je ne a que Benno bi ngeen warona Benno ngir askanum Sénégal. Ah, moy li ma la wax léegi ni ci enjeu kon sen intérêt bop moy privé kon kenn ku ci nek intérêt bop moy privé. Benno Bokk yakar loolu moy wané na ñom sen poste ak bëgg ay auto ak nos ak ndaataa talax mo len intéressé. c'est la première fois ñom ñu top opposition bi. <laughs> musul bi rek lañ wax ne dañuy tas assemblée nationale. ministre bi ci boppam bind. président assemblée naan ko retirer li parce que li même ñom seen bop sax xam nga motax gis nga motax gis nga les politiques la Mambay. waaw euh, ni ñuy politiquer daal ak parti politique yi ni ñu koy organiser dafa doy waar. yenn saa da ngay yëkëti loxo te mu leer na li lii gëmoo ah oui. c'est pas parce que mais aux États-Unis Sénat bi wala euh, en France. mais l'assemblée do koy sétal xana ak seen premier ministre bu fa démé madame Bonno do koy sétal mais mais mais même député yi nekk au pouvoir sax bu ñu waree yóbbu benn procès mais ñëppay tiit dañ naan sa ba dina jàll. Mhm. mais fii da toog muy dox. ba pare Sall gis nga article 87 boobu ñu wax. muy dox kay. c'est comme sa troisième candidature. ah day naxee rek. te hmm? koy leer na lenn loo xam ne du ko def te jaarul yoon. mu ne xaaral ma wax ne dama koy def. Hmm. xam nga lan mooy objectif foofu. Mm. bu roccee ko ñu ne oh sorti par la grande porte. <laughs> Ah, kon naxam naxe mbaay la moom ba tey daf ñuy manipuler. pexe day pexe. Ah. par contre gars yi affaire pexe man ñooñu gëwuma leen. Mm-hmm. ak ndaw see doon créé démb parti xam nga lu tax. Mm. mënoo nekk ni lu tollu fukki at ak ñaar. Mm-hmm. nga nekk comptable de sa gestion. de sa gouvernance noos nekk ci oto yi. nekk ci carburant bi fukki at ak ñaar Macky Sall taxaw ne. man léegi tàggoo naa xam nga li tax Macky teelu ko wax bu ko teeloon a wax ba léegi nii gaa yi dem nañ bu yàgg. kon finalement a eu raison de se bi kañ la waxoon ne moom la moom la koy wax. vendredi bi passé lañ waxoon. vendredi bi passé bële ba mu wax ko ba vendredi ba mu wax ko. aywa ñaari cas yi taxaw moom. sabar bu tas lay doon. jërëjëf. sabar bu tas waa sama baat bi dee. jàpp ci rek monsieur le maire. nga ne ma ci kanam. demande de tout le peuple sénégalais. le député du peuple. non nul ne peut exercer plus de deux revues. <laughs> consécutive. c'est ça voilà c'est ça. léegi moom day def. ñu toog tuuti. ñu tëb. Medvedev. <laughs> Poutine. maay Poutine mooy Medvedev demal ma. aywa mi ngi noonu. voilà. am na tax na maax yaasin dañ ñoo saaga saaga bañ tooy dañ ñoo xaas règlement de compte la maax yéen ñi ñu doon saaga ah, ah amul lu ñu yekkul xanaa war ngeen rus tey nag non non non xas bañ <laughs> dégg ma fi benn complice bu bon non non non doo ci dara mais si kër ba pare envoyé ko déedéet déedéet déedéet ba tey baax na non sa bopp demal <laughs> du média. tey tey tey kan moo yëg ci kaw turbine bi. Amadou ah, oh, Ba tey am na tey yëg ci kaw de ne noo nga ca kaw. tey El Hadj moo yëg ci kaw turbine a ah, kaay El Hadj Amadou neexul ba neex mais Benno mënul gañe Dakar d'accord nga. <laughs> day dëggal ne 2017 sax gañe wul woon Dakar. ah dañ leen a faraloon. te nee na second tour faw mu am làmb ji. président arène nationale bi moom làmb ji foo mu nekk deux fois. moom moom yi muy def man dama ko gën moom ba fi pour du doon candidat. kër a Ba. si. d'accord aussi sorti bu mujjee def. non dama ne Amadou Ba. Ba. warul nekk un suiviste de nekkul même yaramam bi sax. yorul profil bi. yorul profilu. dafa manqué caacaayu politique. non yorul profilu moom toppe toppe toppe toppekat. mais voilà. Amadou Ba dafa Amadou Ba heure bii waroon na fekk bu yàgg yàgg. xoolal mu lijjanti boppam wala mais xoolal wuy ma. dafa war a dëggal boppam. kaay nag ma wax la benn info de taille de. c' est le mm. journaliste qui parle. Mm. ponkal yëpp a nga ca l' autre côté. waaw ah bon ah mooy fan. mooy fan Abdoulaye Daouda Diallo. Mbadou si. kenn kese kenn non déglu ma expliqué rek mhm. gis nga ñoom ñoom ñoom ñoom Harouna Dia mm-hmm. authentique après waaye non c'est que waxuma la sax authentique yi mais ñooñu ñooñu ña ña yéen woon waa ji ak KW mm-hmm. Harouna Dia moom laa ñemee tudd moom KW AM ADS bunka li nga xam ne ñoo yéen woon Macky Sall ñoom ñëpp actuellement ñu ngi ci Ablaye Daouda Diallo ba pare ma wax la benn affaire boo xam ni ñu bëri yëguñu ko de. dafa am benn pacte bu yenn responsable APR signé. seen biir wax la ko fii tey. ah wax la ko. Hmm. dañ ko signé ci secret ci biir néeg. Hmm. te matuñ sax juróom. Hmm. moo tax ma ne la c'est le journaliste qui parle. Amadou xeexul du doon candidat. du xoolal gis nga Aly Ngouille Ndiaye. Diouf daaw da Daouda Diallo le pacte signé xam nga la est-ce que le pacte signé mooy ñin ñi kuñ ci tànn rek ñun ñëpp d'accord nañu xam nga li ma la hmm. mais keneen ku ñu tànn ñin bu ñu neexee gaañ ñu ñu ñu dem ci très bien Amadou Ba na bañ a xeex rek aywa Amadou Ba El Hadj nee na boo xeexul bu la wóoree ne sa jàmm li nga bëgg doo ko am rek aywa waaye nag boo bëggee dégg dëgg élection présidentielle di ñu dëgmal nii hmm. risque la ci camp président Macky Sall ragal ah. du ko def Hmm. risque la ndax fi ñu toll nii amaguñu candidat te élection yi ñëw na ba noppi risque nga ci biir bee boo ñu bàyyi ci xel bu baax sànq wax ngeen ko maître Abdoulaye Tine mi nga xam ne yàgg naa xeex parrainage hmm. ba mu koy xeex kenn xeexul